xar kanam bu doy waar la ñu nemmeeku sa tali croisement 22 gannaaw yëngu-yëngu yi fa amoon ngoon jàpp guddi alxamis magasin Auchan Sonatel ba ci station Shell bi ne sa wet bi daanaka dara desu fa. jël nañ yëpp yàq nañ yëpp dindi nañ euh, coffre bi ñaari coffre yëpp toj nañ ko yóbbu nañ xaalis bi et puis euh, toj nañ boutique bàyyi ñu fi dara yóbbu nañ lëpp lépp lépp buñ ñu jëloon bagage yi sax dem du am problème mais dañu yàq dañu yàq lépp coffre bi daaj. caméra yi yëpp amul dara lu ñu gis nga boutique bi ni nga ko gisee nii amul dara lu ñu fi bàyyi franchement. lii daal métti na bu fekkee benn wax bu ndaw moo moo war a mën a tax dëkk bi calmer ki ko war a wax nañu dimbali ñu wax ko parce que sonn nañ trop ñun dañuy daw. tàllaluñu kenn loxo ñaanuñu saraxuwuñu ci suñu liggéey yi la ñu am pour daan pour pour faj suñuy soxla. ñun ñëpp am nañ naqar am nañ ñu naqari trop trop trop trop trop trop parce que ay employés ñu ngi fi lu mat 15 employés ñu ngi fi. 15 yoo xamante ne chaque jour bu ñëwee fii la ñuy xëy daane seen doole léegi nag ñu ñëw defal ñu lii franchement te ñun suñu yoon newu ci. muy ndaw ñu fekk ko mu ñëw nemmeeku si yàqu-yàqu yi si kanamu Sonatel bi di nakarlu bu baax li nga xam ne gis na ko. yàqu-yàqu yi yox dëgg yàlla bëri na trop te yàq bi tamit dama gis ne man lu jéggi day loolu lu ëpp la quoi parce que li nga xam ne boo ko yàqee tamit ci conséquence yow yaa koy sibiraat yaakaar naa war nañ ko mën a bañ a yàqu comme ni ñu ko yàqee nii parce que yàq-yàq bi yëpp. ay xale yu ndaw a koy def ñoo xam si ils sont même pas inconscients de ñuy def xamuñu sax li ñuy def dañuy yàq pour yàq rek certains tamit ay malfaiteurs yoo xam ne di ci laxasu di ñëwaale bëgg a kiyaale seen kii dëgg la naqar boo ko amee da nga koy wane mais ak nu nga koy wane parce que li ñu yàq nii du alalu Macky Sall du alalu kii suñu alal la suñu alal la ñuy yàqaat encore nii suñu àll bu ñu koy yàqee tamit crise bi tamit ñun ñoo koy sibiraat bi ñu bàyyeekoo sa tali croisement 22 bi. mairie bu parcelle itam lii la ñu fa fekk. lépp yàqu. amul dara luñ fi bàyyi parce que tey jii boo xoolee statut immeuble bi nga xamante ni moo abrité mairie commune bi du siège du table du bureau du liggéeyukaay du du lépp li nga xamante ni rek yaa ngi xalaat ni rek euh, outil la boo xam mën nga ci liggéey muy sax benn big sax bàyyi wuñ ko fi donc ça veut dire que tout est rasé à zéro bi ñu ci defoon it kon ça veut dire nax saay na état sivil nga juddu nga dee ngay takk jabar bii teg lépp da ngay wut état civil tey ji jeunesse bi ñi nga gis ñuy def euh, manifestation yooyu pratiquement c'est des jeunes ci commune bi leen juddoo donc seen ay kayit rek ñoo fi nekk. institution bu toll nii commune ngeen ñëw fekk ko taal ko raser ko à zéro donc loolu mun ñu ko se lenn lenn lenn amul benn signification bu dul. vandalisme caractérisé. yàqu-yàqu yi bëri na fi ñu ko nemmeeku. juróol chômage ndaw ak yenn ci borom kër. dénkaane bi ñoom liggéeykat yi doon yëngu ci yooyee bërëb xamle. jëmale ko ci manifestant yi. moo di lépp li ñu yàq alalu doomi réew mi la.